quand on parlait de la troisième candidature de Macky Sall. Mm. J'ai dit qu'il est rentré dans l'histoire de façon positive comme de façon négative. Et façon négative, peut-être c'est pas lui directement, mais la gestion du dossier Ousmane Sonko, bon, reste, ça laisse perplexe. Mm. Mm. Parce que quelqu'un qu'on accuse, après finalement qu'on innocente, pour dire que corruption de la jeunesse. Je pense que si on des corruption de la jeunesse Sénégal, nous en prison. C'est un délit, non Même si c'est un délit, je pense que ce n'est pas appliqué. Parce qu'aujourd'hui. Il y a dans les délits. Voilà, donc. Euh, je pense que. Qui est euh, de meurtre et qu'on requalifie. Ouais, D'accord. Mais je pense que ce ce qu'on appliqué. appliqué. toujours la justice. Euh, d'autant plus qu'il y a le problème des fichiers de parrainage Il n'est pas un problème parce que mu la justice bi parce que quand on dit que il doit avoir un fiche de parrainage, une fiche de parrainage donc mais mon problème c'est vraiment euh, la violence parce que man on peut pas justifier la violence Quel monde peut justifier c'est du n'importe quoi que parce que dans la merde tu vas détruire le, bien des autres en bon sens d'autant plus que déjà nous sommes un pays pauvre on n'a rien du tout si le budget du Sénégal à peu près 10 milliards de dollars le budget États-Unis seen armée 886 milliards de dollars c'est presque 88 fois le budget du Sénégal ñom armée donc pour dire comment on est pauvre donc un pays pauvre comme ça on se débrouille ñun pour am dara nga nga mer yak réew mi du n'importe quoi donc ça on condamne ça Quel mënul wax ba du condamner du n'importe quoi rien ne justifier la violence mën a kaas mën a mais de façon boo xam ne doo yàq te kaas beeg mer bi lu mu est-ce que ça a résolu le problème kaas nañu mer nañu yàq nañu à la fin même les personnes ñu doon yàq ñoom ñoo am problème parce que tey xale yi nekkoon université di yàq tey ñoom ñoo bëgg a jàngawaat université. te man gëm naa ne xale yi ñoom suñu bëggul woon université kenn du ko laal kenn du ko laal. Mhm. Donc, il faut dire la vérité. Ce n'est pas parce que je suis de l'opposition que je vais dire euh, ce que les gens veulent entendre. d'ailleurs, lui, de mhm. Il y a eu du n'importe quoi dans cette politique. Les gens ont une violence non justifiée à cause de la politique. Le dossier a été mal géré. Limite, on sait que la justice doit avoir. Mais ce que les gens disent, augmenter les forces de l'ordre, comme mon ami me l'a dit, moi, je ne suis pas d'accord sur ça. Je ne suis pas d'accord sur un État. Euh, je pense qu'il faut sensibiliser. Il faut mhm. que les parents éduquent leurs enfants. Parce que, avant, xale déglu doon doon déglu sen mag mais loolu dafa manquer léegi da ngay gis mag bo xamné am dom dom am 5 ans 6 ans il est 20 h 21 heures wala 22 h xamul so dom fu mu c'est du n'importe quoi man j'étais ici chez moi à 23 h quand les gens allumaient il y avait des enfants de 5 ans 6 ans yu doon romb ne don amon sànni où étaient leurs parents. c'est du n'importe quoi waxante la justice séparation du pouvoir tout ça c'est du n'importe quoi parce que l'homme peut séparer les pouvoirs il y a la corruption de changer. Mm-hmm. tant qu'il y a la corruption de changer. Je veux dire, une personne indépendante mais si la personne elle est corrompue sur le ñoo que soo euh, jëlee décision bi je jox le kër moo jox un milliard la personne va prendre ses décisions. donc il faut travailler sur les valeurs il faut prendre des gens de valeur ils ont des valeurs parce qu'ils ont des milliards sur leen ko de dañuy bañ Donc, il donc faut travailler sur ça ñu avons qui parce que ce n'est pas normal nga am xale bu ndaw jusqu'à 1h du matin donc il faut vraiment le dossier Sonko man je pense que faut d'encre si euh, son bilan. Très bien. mais malheureusement on que pour euh, toll alors Ndeye Fatou peut-être sur euh, le dossier Ousmane Sonko Adissar, Ousmane Sonko Mame Mbaye Tahawalat le 4 janvier. Mhm. mais aussi sur les arrestations on en parle une bonne fois parce que je pense que tu envie de les dire aussi. Oui, mhm. ñaari dossier a de ba des ñu ngi ci actualité parce que c'est une ramification qui est ñuy mais nee ñaari dossier yooyu lan la ñu coûté des vies mhm. humaines dañu daanu ci dossier yooyu noonu ne ne ay 2021 ba 2023 pour affaire justice euh, Sénégal dund na loo xam ne dañ koy nettali ci taarixu Sénégal parce que non seulement ay nit ñàkk nañu seen bakkan mais dëkk bi euh, dund na comme si dañu nekk ci état d'urgence parce qu'il arrivait des journées où do gis kenn ci biti bo gisee xëy mbolo buy sananté ak ay force de l'ordre ngay gis wala ay grenade lacrymogène ci biir dëkk bi on pensait que <laughs> le pays allait finir à feu et à sang Nous, était peut-être en 2021 l'intervention de nos religieux et en 2023 peut-être accalmie bo xamné c'est après que nos forces vraiment de défense et de sécurité wane nañ ko ci njambar wane ko aussi ci ténacité ci théâtre des opérations mm-hmm. et il faut quand même saluer leur professionnalisme parce que suñu avons yenn force de l'ordre yenn yi nga peut-être il tirent sur tout ce qui bouge Quand on nañu don am grabuge ci dëkk bi au Sénégal te grabuge bobu buñ paré won bay def inventaire fi indi mm-hmm mais ku nek so pareil di nga di nga mere sa bop mhm. lan moko fi indi dossier de justice buñu fi tek une femme bo xamné accusée accusé na de viol un leader politique. Hmm? mu accusé ko de viol avant ñoo dem ci ay procès wala ñuy dem sax ci mbiru justice dëkk bi tak dëkk bi tak parce que tamit nit ki ñu wo justice nga wo sa mbolo ne ñepp na ngeen ma bunge. Mhm. xeyna bëss bu débordé yow am nga ci part de responsabilité parce que ya woté né ne bo yoré kii nii mbooloo aussi mu doon mbooloo boo xam ne dañu ak dañu nekk ci sa cause te amuñ ci sago mhm. tamit dafa am nooy waxeek ñoom parce que bëgg dafa métti far dafa métti donc booy wax ak say farandoo peut-être am na neneen noo mën a activer seen pas-pas mais du woote ci loo xam ne day jur débordement léegi nag bu dëkk bi tàkkee violence am est-ce que moment yooyu noonu kenn jóg na ci li waral violence bi pour diir retourner dans les maisons ah. na violence bi dak loolu tam acte de patriotisme la su fekke ne yow si rew mi nga dekk nga gis ne rew mi amna ben tak tak bu fi am te ken xamul fu mu jëm mhm. ndax yow du devoir ci yow nga ne tak tak bi na fay num gëna gaawé ñaar nag nañ ko aussi bien ci côté nguur mais aussi ci côté li waral ciow li yëpp parce que li waral ciow li aussi ken mënu ko bayyi mhm. ndax lu mëna ma am enquête amna te pour man mënoon nañu jiital xel te bañ a jiital xol mais li ñu indi ci problème yëpp ci affaire Mame Mbaye affaire aji Sarr mooy xol moo si jiitu te xol buy faj peut-être mën na dem ba yegg foo xam ne foogee woo ko et loolu yëpp aussi bien pouvoir am na si responsabilité mm-hmm. que Ousmane Sonko am na ci responsabilité parce que moo woote moom moo ne ñëw leen bunge ma tribunal yéen laa yaakaar et bi ñu mm-hmm. passé 2021 def na fi discours ba ne première vague jàll euh, na deuxième vague moy waaj yalla n'est-ce pas kon koku violence yi fi am mom dako dako dako dako da ak cautionné en fait il n'a pas condamné mais il a cautionné parce que peut-être bu don lu mu condamné la du tok publiquement naan après première vague boo moytu deuxième vague dina am donc fofu rek la meuna incriminer état ak mom yeb moy le fait que ay bakkan ñu ngi rot dëkk bi mu ngi yëngu te gis nga Sénégal leader politique bu fi mën a jàpp ci ne réew mi di nga ko jël ci violence yaa ngi ci chimère Sénégal am na fii ay forces de défense et de sécurité yoo xam ne du ñu nangu duñu ñu permettre réew mi ñu koy jël par la voie des armes mënta nekk parce que buñ ko naroon def nañ ko depuis kon du léegi nga xam ne suñu armee suñuy FDS gën nañoo professionnaliser wu ci li ñuy def mais aussi gën a méngale seen i euh, jumtukaay. ak li nga xam ne moom la àdduna bi laaj tey du tey la ñuy nangu loolu donc il fallait choisir la voie de la politique pour man. pour conquérir le pouvoir parce que dañu dem benn moment ba da ngay jàpp ne ci doole lañ mën a jëlee réew mi alors que du foofu moom lañ waroon woo askan wi askan wi dañ leen waroon woo ci beaucoup plus de responsabilité. woo leen aussi ci benn politique boo xam ne du féewale du xaajatle mais day construire day tabax nit mhm. mais du ñu jël askan di leen di manipuler ci politique boo xam ne ci ay horreur lay mujj ci ay ay horreur lay mujj parce que violence verbale sax loolu c'est horrible des fois lu ñuy wax kàddu li mu mën a yàq sax mhm. jëf mënu koo yàq kon nag il faut pas minimiser la violence verbale bi nga xamné ne am tay ci langue politique bi. Mhm. te acteurs yi ko sekk ci ñenn ñi dañ ko cautionné xam nga tax ñu cautionné ko nit day wax lu ko neex. revendiquer wu ci ben formation politique te formation politique bobu du génn mukk ne ki bokul ci ñun wala ki du ñun ñoko ko démenti donc dañuy def ben pat. légui nak pat ak organisé bobu ñuy def ci ñaawteef yeeg yenn façon doxalin des fois aussi bu dëkk bi yëngoo noonu la ñeneen ñi nga xam ne ay jàmbur lañ di def pat organisé di seetaan fan la wànnant di mujjee ki gëtam donc ces affaires judiciaires là man mënuma leen jàppee sax affaires judiciaires yoo xam ne dañu simple mais damay jàpp ne ce sont des contentieux des tensions yoo xamante ne peut-être euh, déclencheur bi c'est la justice mais dem na ba jural askan wi ay jafe-jafe ak ñàkkum bakkan boo xamante ne ba tey jii y a pas eu d'enquête ce qui est à déplorer parce que depuis 2000 21 ñi fi gaañu woon kenn xamul ci yan anam la yenn sanction moo ci topp ak lan lañ prévoir pour ñi nga xamante ne ay auteur lañ loolu yëpp leeragul mais bu weesoo deux mille vingt et mille vingt bi moom kenn waxatu ko ndëgam vingt vingt et un la leerul de vingt quatre lay leeree mm. yooyu noonu yëpp ce sont des yoo xam ne am na fi mais lu ci mën a am cette justice là mën naa gën a taxawee neneen askan wi parce que la justice pour le peuple la et pour le peuple bu fekkee ne justice di fi que bés bu wala mu indi dogal peuple bi warul xey rek diko rejeter c'est parce que peuple bi xaar justice donc cette justice là war na li nga la askanam di xaar ci ci ay dogalam ak ci doxalinam di def chaque fois ci table peuple bi du nangu wala sax day dem exprimer d'une manière violente pour euh, pour son refus Mhm. ces affaires judiciaires euh, Serigne Saliou ak l'eau de mort yi mu yi mu entraîné euh, est-ce que de lolo tax frustration boobu moom moment, dem ba répercuter parce que tout à l'heure mu ngi waxu animosité mais est-ce que du frustration yi moom moo dem